je pense que euh, focus bi nga xamante mom lañu mom lañu woté won sénégalais woté ko focus ci lan changement focus ci lan fexe ba Sénégal am benen xar kanam ci ay élection yu muccu ay parce que dañ doon wax une élection inclusive finalement élection inclusive mënatul wona nek parce que am ñu bari ño xamné waron nañu mëna bok ci élection yi te bokkuñu kenn ci ñom di Ousmane Sonko mais euh, alhamdoulillah bu mom son amour euh, euh, pour la patrie dafa jitu faw xa ñu tout, parce que tay bu ko comme nous ko waxe bi euh, élection pour permettre mu mais la constitution sénégalaise voilà le peuple sénégalais wala la république au-dessus de tout même au-dessus de sa personne moom Ousmane Sonko ba tax mu dadi tab tabb euh, Bassirou Diomaye Faye ñu def ko mom Ousmane Sonko nak par la suite premier ministre ma kontaanoon ci lool lool lool sax parce que mënuñu wax le projet Pastef sans Ousmane Sonko. donc euh, comme li may wax rek ku doon ut ñaari président ku doon ut ben am ci ñaar mënoo def le dul sant yàlla ah. oui surtout si s'il s'agit de deux hommes yo xamanteni ño ñoo bokk gis-gis ño bokk conviction ño bokk jaar-jaar ño bokk xalaat ño bokk lepp

Macky Sall dafa jëloon ay décret di signé jël ay décret di signé alors que l'on sait que 12 ans yim fi nekkoon yépp mi ngi nekkoon mom ak i njoñam di caxat caxatee alalu réew mi suufu réew mi ñu jël ko di caxat caxatee lu ne ñu def ko lu ne lu ne lu ne ba fi mu nekk nii tey euh, président Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko réew mi nga xamante mom lañu fekk Sénégal moy réew mo xamante c'est totalement. maanaam dañ ko dañu dañu dañu basar basar pasar pasaree waa c'est le mot pasar pasaree alalu Sénégal pasar pasaree suufu Sénégal pasar pasaree lépp ils ont du boulot li ñu war a yëkkati yëpp dafa bëri urgence yi bëri Sénégal li may wax naan yaram buy mar yaramu màgget la foo laal day métti te yëpp kenn teguñu ko kuddul euh, euh, Macky Sall ak i njoñam Macky Sall ak i njoñam man dama jàpp ni ni mu génnee nii sax dem Nous mu c'est trop facile c'est trop facile man veux ci dañ réconciliation d'accord on doit se réconcilier parce que nous sénégalais mais avant de se réconcilier il faut que mu lève il faut que justice soit faite man damay demander justice pour les martyrs demander justice pour ces sénégalais qui ont été emprisonnés injustement dama Macky il a fait trop de mal te du tay lañ koy faté. du tay lañ koy faté. donc il faudra que justice soit faite. mais te Yalla aussi gis na pas yi nga xamanteni tay ji nouveau gouvernement bi à savoir euh, son excellence Bassirou Diomaye Faye ak euh, Ousmane Sonko décision yi nga xamanteni ni jël nañ ko parce que gis nañ ni que reddition des comptes beaucoup na ci une ay priorité parce que demandé nañ pour ñu rendre public li nga xamante modi rapport yi rapport aux cinq dernières années c'est important ñu xam ki ki te man bokuma ci kat yi nga xamante dañuy demander à ce que bu ñu reddition des comptes ba pare wala buñu euh, publier rapport yi képp ko xamante ni épingle na épingle nañ la nga yoreel nit ñi xaalis yoreel askanu Sénégal xaalis nga gokki ko rek maanaam dem ci suuf rek nanga ko joxe xaalis yi dañ la war a fësal ñëpp xam ni yow la non seulement kuñ ci war a tëj kaso ñu tëj la kaso. lii mooy dëgg li leneen luñ ci wax dañuy la dañuy layam layam yi lii mooy dëgg kuñ ci war a tëj nañ la tëj parce que nag dañoo jàkkoon ay gor yoo xamante ni defuñu waxuñu ñu tëj leen ci kaso bi. Hmm. pendant ce temps ñi nga xamante ni ñu ngi muuc suñu deret nekk si mbedd bi di def lu leen neex. ils nañ fi Mamadou massali yoron pistolet ca Thiès di dakari askan askan wi ci élection yi wala ci manifestation yi kooku est-ce que tay war ko bàyyi muy comme si de rien n'était déedéet yoon dafa war def mais ci cas bi may insister bi waral sax tay ma def live bii nii bi waral ma def live Anita Diop. nabi Vision. Anita Diop parce que Diop elle a fait trop de mal na elle émission de duma a ci taille wax duma a ci di wax Anita Diop tas na ay Anita Diop jël na ay données personnelles lu nit ko ci internet Anita Diop na nit parce que dans seetlu woon ne képp koo des euh, jël na dugal ko ci biir page Facebook rek publier ko yow buñ ko defee tey ëllëg sa dinañ la jàpp Anita mooy kan Anita moo fi joloon photo Ousmane Sonko publier ko ci page Facebook am biñ ko jàppee woon par la gendarmerie photo euh, arbam photo carte d'identité entre autres des biens personnels Ousmane Sonko ak yeneen sénégalais yoo xamante ne defuñu waxuñu démb rek am na koo xamante ne yaakaar naa mi ngi may saisir Dima, ma wan ay photo yo xam bima ma ko xolé sama xol dafa jeex té kenn teg kookul kudul Anita Diop Anita mo publier photo xey suba gendarmerie fekk ko këram jël entre autres Anita c'est un homme ou une femme c'est une personne ou plusieurs personnes on ne sait pas man en tout cas xawma mais bokk na ci li bëgg xam parce que man mii di wax ak yéen Anita bindal na ma loo xam ne ba tey ji bu ma toogee daf may métti te noonu laa ci bëri ay moroom dañoo war a xam kan mooy Anita Diop gis nga réduction des contacts entre autres ni mu nekkee demande sociale Anita Diop tamit ñu xam mooy kan demande sociale la dañu war a xam kan moo nekk derrière ce compte muy du tudd tur parce que man xaw ma nag officiellement c'est kii xaw ma kan la mais nañ ñu wax kan la autorités yi nga xamante ni ils sont habili elles bu ñu ko bëggee xam dinañ ko xam te nag du ñu jug ci di leen soññu du ñu jug ci di leen soññu. Naby Vision. man balaa maa dallu dañuy xam kan mooy Anita Diop elle fait trop de mal encore une fois nañu taxawal wax ñu kan mooy Anita kan moo nekk derrière ce compte. c'est trop facile nekk ci sa derrière ordinateur wala sa téléphone jël ay photo nit dugal jël ay données personnelles nit dugal ne dinañ la jàpp saa su ko waxee rek bu ñu nee diw dinañ ko jàpp sa ëllëg sa boo xoolee kooku dinañ ko jàpp loolu pour lan la vie privée nit mu jël dugal te nim lay waxal dara du ci doon dëgg ay sos lay doon yàq na ay ay deru gor tës tas na ay sëy comme ni ma koy waxee am na koo xamante ni démb démb wax waaw li ma saisir nee na moom ci kaso bi yaayam ak papaam yëpp dañoo dee ci ginnaawam. ndax la naqar bi nga xamante ni Anita teg na ko teg na leen ko ndax publication bi mu defoon noonu. Lita maa ngi lay ziar bu baax a baax xaw ma nax fu mu mën a nekk parce que man du ma tudd tur alors que xaw ma benn preuve ce qui est sûr mooy. compte ba Anita lañ ci bind mu sant Diop ñu def mbéng entre parenthèse nañ ñu xoolal kan mooy Anita Diop ñu leeral ko tirer ça mu leer nañ pour l'avenir kenn du ama ci jot boobu noonu kenn du ci fit boobu noonu y a de mal y a eu trop d'injustice man Salma Ibrahima Fall du ma noppalu fii ak xamuñu kan mooy Anita Diop man Salma Ibrahima Fall du ma noppalu fii ak justice amul. Parce que je demande justice pour nos martyrs. Je demande justice pour ces Sénégalais qui ont été emprisonnés. nit ñi dañu sonnon fukki at ak ñaar ñu né ci fitna sonn ba bëgg dé dee suñu ay ndab ñabot jaxlé man mii tëjuñu ma woon waaye daanaka tëj nañ ma. ndax saa yi su ma solee sama daal di liggéey sama waa kër ñu lekk dootuñu naan dootuñu nelaw ils se disent à tout moment su ma génnee mën naa bañ ñëwaat te noonu laa ci bëri ay ay moroom waaye ma wàkkirlu rek ci suñu boroom donte ay menaces ngi ñëw donte ay intimidation mi ngi ñëw ma wàkkirlu rek ci suñu boroom ni dëgg laay faral. Naby Vision. Anita Diop ana lu mu bindul ci man ana lu mu bindul ci sama ay moroom. ay ñu ngi ci say dossier Anita ñaata yoon la ma fi bind ne mu ngi ci sama ay dossier ma ne ko ku mën na def boo mënee rek génneel il faut ñu xam kan la il faut ñu xam Anita Diop kan la loolu moo taxoon tey ma ne dinaa live wax naa ko awal faj yi ci suñu plateau dinaa ko wax ci sama live te dinaa wëy di ko wax dinaa woy di ko wax Anita dañu war a xam kan la ñu ngi noonu donc loolu moo taxoon ma ne dinaa live mais di encourager aussi ci gouvernement bu bees bi ci mesures yu am solo yi nga xamanteni jël nañ ko parce que ñu ngi eh, eh, eh, publier ay rapport demandé nañ à ce que ñu publier rapport xol bu baaxa baax aussi ñi nga xamanteni ne jamono ji euh, ñooy ñoo nekk di yëngu ci fonction publique entre autres mais aussi di saluer euh, taxawaay bi nga xamanteni son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye jël na parce que nit da ngay gëm sa bop nit da ngay gëm sa bop c'est la première fois Barbok, boog man may fàttaliku président falu fi Sénégal manam Diego yi ngay ñëkkal jox dox bokku ci so sa dem France au contraire France moko ko moo def ben clin d'œil mais faalewu leen dafa sol dalam dem dem dem Mauritanie ñu ne dee ko mu dem Gambie gannaaw ba mu seetee kilifa diine yi nekk fi Sénégal ba paré waa Union européenne ñom ñoo déplacer wu ñew Sénégal li moy dëgg

si Diego, yu am solo yi nga xamante ñu koy def parce que li la soxla un peuple souverain du xëy rek souverain nak dina am ay jéego yu am solo yo xam dang koy tek diko tek diko tek diko tek ba di nga bëgg nga am ko. baña tombé aussi ci piège yu yenn nit yi nga xamante c'est des gens mal intentionnés bëgg rediriger le débat andi ay détails yo xamante ni nit ñi wuñu yoyu nonu dama né Ousmane Sonko le président Bassir Diomaye Diakhar Fay dañ leen a yakamti leen yónni leen yakamti leen ba tax na ñu war def bloc ñom ñaar and ak seen gouvernement di xàccandoo di dóorandoo li la soxla nabi Naby te ñom ñu ngi fi donc sante yalla bu baaxa baax et j'ai l'impression que li leen sénégalais yi di xaar aussi ñom xam nañ ko xam nañ enjeu yi xam nañ enjeu yi mais justice pour nos martyrs dama koy wax justice pour ces pour ces sénégalais yi nga xamante ils ont été emprisonné mais que euh, le compte qui ki nga derrière le compte Anita Diop ñu démasquons. ko nañu Anita Diop parce que dafa def lu metti man dama recevoir ben appel bo man dama sax sama man wax ay Anita Anita bindal na ma li bindal na ma la mais bima ak man man dama sama leen bind ci kooku loolu la yaayam gis ba crise cardiaque dee ci saa si tu te rends il faut ñu jug ci lii il ñu jug ci lii man de bokk naa ci nit yi nga xamante ni du ma toog du ma bàyyi fii ak Anita Diop wuñ ko dinaa ko wax ci sama plateau télévisé dinaa ko wax ci samay réseau ku ko war a dégg ko inshallah ñu porter plainte aussi dem def ji plainte plainte collective pourquoi pas pourquoi pas Nabi Vision Mais qui demande nationale nañu xam kan mooy Anita Diop kan moo nekkoon derrière ce compte c'est trop facile nga nekk fi depuis tout ce temps di bind lu la neex yàq deru nit ñi tas ay sëy toroxal ay nit am na ñoo xamante ni ñu tëj leen ci kaso am ñoo xamante ni ñu ñàkk seen waajur ndax lan publication boo def ñu fekk leen seen kër ay xaaju guddi jàpp leen après yow nga continuer ta vie comme ça pour lan xanaa ñun dañoo dof mënta ne dinañu démasquer kan moo nekkoon derrière s compte man li ma bindal sax dama koo fàtte dama koo fàtte te noonu la ma méttee woon noonu la ma méttee woon métti na ma ba tey sax waaye maanaam démb bi ma jotee benn témoignage kooku di ma wax li mu wax si moom yëpp ba way juróom bu jigéen ñàkk si àdduna man dama fàtte sama bos waxuma ay waxu euh, euh, ndaw si une une pomme et kooku nga xamante ni moom kenn xamul xamul lan la moom man kooku waxuma sax ay waxam mais Anita Diop nañu xam kan mooy derrière ce kan moo nekk derrière ce ak ki ko doon fay ki doon alimenté compte boobu noonu nañ xam kan la. Naby Vision. nañ ko xam du ma noppalu fii ak xamuñu ko xaw ma ndax mi ngi si biir réew mi xaw ma ndax dafa nekk bitim réew moo tax mu amoon fit gu toll noonu. xaw ma ndax parce que sene euh, autorité yi nekkoon fii ñoo ko ngémboon je ne sais pas C'est autant de questions yo, que les je sais que ni koy posé non, le sénégalais yépp posé Anita Diop nañu taxaw ci montré ñu kan man wax. Vision. wax sama plateau télévisé dina ko wax fi té dina woy di wax Fi ak démasquer démasquer wuñu compte bi nékkone fofu non. ki nékkone derrière ce compte man duma neraw. duma am jamm té duma la amone lumay wax détenu politique yi nak jamono ji

di ñaanal régime bu bees bi Bassirou Diomaye Diakhar Faye son excellence ak euh, le PM Ousmane Sonko ñu doxal bañ a gestu li leen tax a jug muy seen projet di seen programme bi nga xamante ne moom la ñu jaay sénégalais yu ba ñu fal leen dès le premier tour incha allah sénégalais yëpp gis ci seen bopp. bañ a déglu benn détracteur bañ a déglu benn mal intentionné te xam ne ñoom ñoo majoritaire dans ce pays.